njëkk tàmbale mooy ci colka Ousmane Sonko gis na ni li mu sol moo gënoon a méngóog bi la ndaje mbubam bi moo ëppoon jëmm te moo gënoon wane li di kilifteef ci gis-gisu kii di Ibrahima Bakhoum. si ni Sénégalais di gisee diggante nit ak kilifaam dafa mel ni démb li ñu woon ba tey Ousmane Sonko mooy kilifa bi pourtant ñoom jéem nañ koo teggi parce que Ousmane Sonko wax na ne kii mooy candidat bi du man may candidat donc Diomaye président xëy na du man si leneen a ngi nii loo xam ne nee na gis na ko si Bassirou Diomaye Faye moo di ne ni mu toogee woon baaxul dafa doon xool si suuf lu bëri luy wane ni kóolute gi mu am si boppam des na lool. mu gën a dëggal boppam gën a siggi xam ne yii moom mooy candidat bi il faut que mu fay il faut que mu dalal xel Sénégalais ñu xàmmee ko fu la ci parce que bu dul loolu bu fekkee ne yow wanu woon ne mën nga danga nga nekk nag rakku keneen ci kii de waaw Sénégalais yi nag du ñu fan rakku kenn. si lu ñeel nag discours Ousmane Sonko di kàddu yi mu yëkkati Ibrahima Bakhoum gis na ni bile yoon xaw na ko seddal Sonko mi ñu xamee woon wax ju dëgër yoo xam ne bu ko daan sànni da daan dal bu baax si kaw ñi mi ku jël. discours yi nga doon dégg si mu nga doon si Macky bu ko defaatoon tey te fekk am na yeneen yoo xam ne ne waxuñ ñun xam am na bu ñu la waxee ñun bu ñu waxtaan waxtaan nañ mais ñu waxtaanee lépp am na wax loo si xam il faut que am loo da ngay ñëwul njëkk a génnee génne ay yu yoo xam ne ci da bi def mun na am am na loo bañoon nit ñi dégg ko bu boobaa kee moo ko génne loolu noonu dafay am bu ko defee mu kal waxuñu ci Macky Sall lu mais ci man Amadou Ba lañ dox parce nañu amoon lu ñu waxal. moom nag gëm na ni Bassirou ak Ousmane Sonko bu dee ni sàmm nañu déggoo gi ñuy wane si kanamu àdduna wërngal këpp lu ni mel mën a tax même bu ñu demoon tey ba gagné yi lu leen féewale du yomb.